assalamu wa senegal Sénégal alaykum le monde de la lutte man suis Mbeur tay ma def déclaration situation actuelle lamb ji fi mu tollu nous bo xolé tay on est des milliers de licenciés xam presque plus de 8000, 9000 licenciés c'est trop duñu centaine dizaine milliers lañ ñu un an je remercie au passage monsieur président Augustin Senghor bi nga le te de football bi bi toog affaire toogaay bi méttee dafa déclaration le ministre bi dit qu'il wax ànduñu si munta te dégg naa football bi day démarrer le 2 janvier Donc, nous, ñun monde de la lutte ana suñuy nous maa ngi interpellé monsieur le président du CNZ, Bira Gris Bordeaux président des lutteurs en activité ñun tey yaay suñu kàddu yaay suñu voix ba tey dégguñu la nga les lutteurs yi nga champion yi nga dañuy ay 50 millions 100 millions tay mën nañ leen comprendre vie stable na mais nañ xalaat ni am nañ ay des milliers ngi amuñu sax bu mot ñi amuñu cent mille day metti ci mom te kenn wax ñu ngi leen parce que dafa emploi mais warul créer chômage té ñi suy dund seen ya waajur yaakar leen ci dafa bari trop xam nga ñu ñu ngi wat di lancer appel képp kuy mbeur nga def vidéo wala nga génn nga wax parce que tay togaay bi dafa yàgg so mënul wax nga so mënul wax nga jël sama vidéo nga partager ko parce que tay euh, quoi qu'on puisse dire gaay sonu nañ xam nga sonu nañ trop té lamb ji dafa wara a ñun mbeuri duñ ay dof gis nañ ñu ngi subventionné danseurs musiciens yi ñëpp mais kenn subventionné wuñu ñun laaju ñu subvention ñun ñu ngi entraîné suñu doole lañ yaakaar ñu ubbil suñu laamu ñu daan suñu doole soxlawuñ ñu subventionné ñu mais nañ ñu ubbil ñu bëre parce que duñ ay dof bu ñu ubbilee tegal ñu ay mesures dañu respecter mesures yi bëre parce que tey loolu mooy suñu métier mais tey toog un an bëre woo ñu ne da ngay demaat beneen at tey am nañ ay xarit yoo xam ne ci làmb lañ bokk tay ñu ngi leen di dégg ci naka sudul noonu ba ñu ngi tëdd ci ay ci ci ay kaso lan moo leen ko waral di ay xale bëriwuñu atu yàlla mais nag ñun dañuy wax lan lañ mën mooy wax parce que ay ay sans voix lañ ay mbër yu ndaw lañ nekk ay xale am nañ droit wax parce que ñu ngi toog bëriwuñu suñuy waajur yaakaar ñu ñuy entraîner suba ak ngoon ñu ngi lancé wat appel kilifa lamb yi ak suñu président lutteur euh, des lutteurs en activité Gris Bordeaux ak président CNG ñu génn def déclaration parce que mbër dañu sonn maa ngi jégalu nag lépp lu ci déplacé wu ay xale lañ rek te dañoo sonn moo indi lii mais maa ngi jégaluwaat ci kàddu yi.